ginaaw bi ñuy santé yalla julli sen nabi sallallahu alayhi wasallam dañuy hmm. sant bu baax bu ñu maye tay ñu téwé bis su korité bi ñu fekké ko ci jamm ak ci salam ma ngi balu akhwa jess ñep balu akhwa Sénégal balu akh julit yëpp nga xamante ni tey bis su bisu korité bi di di di wax ni rek euh, euh, tay ñun euh, li ñu ñor mooy

Euh, fitna parce que ñun ñëpp li ñu war mooy créer jàmm ak salaam fii ci réew mi donc tey muy acteur politique muy acteur religieux ku ci nekk war nga xam ni yàlla mooy dogal yàlla mooy jox nit cër yàlla mooy jox nit li mu am nañu àndandoo booloo ñu nekk benn ngir liggéey suñu réew mais également ngir indi fi jàmm parce que jàmm su amul dara du dox parce que noonoo xiro ngayo moy indi ay jafé jafé moy indi fitna ci bir rew ci sa première participation 10 voix nek lu am solo nek ben force incontournable bana bala président recevoir ndax ndort nga ne war nga mëna a jiite de liste bi nak waaw comme euh, ni ko ko xamee président Macky Sall euh, recevoir nañu waxtaan ak ñun tàllal ñu loxo nak ci élection législative yi nga xamante mom liñ jëm

rôlam ndax askan bi moo ñu ñor askan bi moo tax ñuy xeex te lépp loo xamante ni war nañ ko mën a def pour Thiès mën si gis seen bopp ngir askan bi mën seen gis bopp incha allah. den ko taxawee nga tëdd bi ndax euh, loolu. Euh, waaw xam naa chiffres yi wane nañ ko. waaw xam nga euh, loolu ba léegi kenn eggu fa ñu ngi si waxtaan kenn defandiroon kan mooy nekk ay tëdd list mais tey je pense que Euh, je pense que ni. buñ la ko joxoon doo bañ. non loolu lépp daal ay waxtaan la xam nañ ni ñun am nañ taxawaay boo xamante ni am nañ ko ci cees te it askan bi wóolu lañ lañ lañ en tout cas te it am na lu ñu mën Thiès donc daal en tout cas loolu ñu ngi xaar oh, autorité yi nga xamante ni ñoo war a euh, définir loolu bés bu ñu waxee rek incha allah dinañ ci dem.